إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu borom ñoo ngi koy bàkk di ko kañ di julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ngi ñaan suñu borom mu dëkkee doot ci waanam xéwal ci kaw yonente booba koy saxaaba ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ ci ron keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu bind bi weesu ñoo ngi nekkoon ci dundu as-saxaabiyul jalil Abdullahi ibni Mas'ud saxaaba bu mag boobu nga xam ni moom lañ doon wooyee Abdullahi ibni Mas'ud mbokk yi xam ngeen ne Abdullah ibn Mas'ud waxtaanee dundam mooy waxtaanal gone yi ndax li ko waral mooy Abdullah ibn Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas waxtaanee dundam mooy waxtaanal gone yi la ko sabab mooy liñ koy naree moom Abdullah ibn Abbas nga xam ne lépp du génn xam-xam di ko ko yàlla dénk boo tuut tàkk na ko loolu dama am. benn yëg-yëg muy courage boo xam ne daf koy defaat ci ndaw mi mooy mu yëg ni moom nekkate kat bu góorgóorloo lu ne mën na nekkal loolu lu am solo ndaw lu fas léeg-léeg amaa nit dana yaakaaral jàpp ni ah lii de mën nga ko am ndax nangam ak nangam waaye su fekkee déglu nga dund ko mel ne Abdoulaye ibn Abbas nga xam ne tawfiq yi ko suñu borom defal di ko koy defal tout tànk la di ndaw di nga daal di amaat shuhuur amaat yëg-yëg ah ni man kat ndekete war na maa mën a mel lu ne ndax kii kat gone la Abdullah ibn Mas'ud gis nga Abdullah ibn Abbas gis ngeen tawfiq di ko suñu borom defaloon ci sàkku xam-xam te boo fekk ndaw la daal di fukki at ak nangam maa ngi toog ni mbooloo ñu nu tiim ñi ci ëppal fukki at nawet kon jamono ji Abdullah ibn Abbas di ma tàmbalee mel nan mel booba ci at yi rek la toll at yu tuuti yi waaye nag nit ki saa bu ko gëmee xam ko mu jëm xam la mu bëgg xam la muy wut borom gën na ko defal tawfiq ci kàttanam ba mu am la muy yóbbu sunu bind bi wees gisoon ngeen at lépp ci leer ni ci yi nga xamante ni mooy Abdullah ibn Abbas ak ñaan gi ko yonent bi ñaanaloon alayhi salaatu wa salaam ak ndimbal li ko sunu borom defaloon ci wàllu xam-xam tey ñu ngi sonte ci bunt bii di ibadatuhu radiyallahu anhu nan la meloon moom Abdullah ibn Abbas ci jaam yàlla mbokk yi xam ngeen ni jàng siiratu salaf bokk na ci li ci ëpp solo mooy nit ñi xam ñoom fan la seen ragal yàlla tolloo fan la seen mën a jaamu yàlla tolloo fan la seen jub tolloo fan la seen dëgg tolloo ak fan la seen jëflante tolloo naka la ñuy dee kenn ku nekk ci ñun boo wéetee nga xalaat li nga xam ne nit ñu mel nii teg ragal yàlla ci teel bi ci yonente bi alayhi salatu wasalam fekkee ko waa ji am ngërëmal yonente bi su fekkee ñoo mën a toll fii ci jaamu yàlla comme ñun ñi nga xam ni amaguñu ngërëmal yonente bi alayhi salatu wasalam fekkeewuñ benn xare toog ñu ñëw jarooro jóg jël suñu jarooro ji maanaam li nga xam ne mooy ay jumtukaay yi tax nit texe yii yëpp ñoom ñu amoon ñu amul ca benn maa ngi yaakaar ni kon góorgóorlu ñun la war a gën a war ibni abi mulayka mooy nettali nee na damaa àndoon ak abdullah ibn abbas benn bis ñu jógee makka jam madina nee na bokk na ci li ma seetlu mooy saa bu guddi jotee rek dafa mel ni ku ñuy yeesal allahu akbar nii la salafu saalih mi noonu mu ne bu guddi jotee day mel ni ku ñuy yeesal yeesal ci mooy la mooy dafay bàyyi ba ñu toog su ko defee kenn ku ci nekk tëdd ba nga tëdd moom it mu tëdd ko bu njëkk gis nga gars yi ñu xamoon ni ñuy wutee ziyaar la te ñoom xamal lu ñuy moytoo gis sàlla au lieu que mu lal ci jaaraan teg sa talaan fëy di wane man ko dinaa jub ci guddi gi déedéet nit ñi dañuy lal mu lal comme ñoom ñu tàlleeku mu tàlleeku ñu sànd mu sànd soo yéene ñu ngi ko jëmale ba nga nekk déedéet day yeesal nit allahu akbar boo delloo ci téere mel ni sifatu safwa ah al imaam ibn al jawzi man koy nekk li ñu mel noonu bu demee ci téere alamin nubala imaam zahabi man koy nekk li ñu mel noonu moo tax ñu ci nit yi day kenn nga xam ni da daan yeesal soxna si ba guddi soxna si nelaw mu roccee ku ndànk di julli baa muy jooyal yàlla nga xam ne soxnaan sax du ko yëg kenn ci ñoom moo nekk li wax ci imaam zahabi def ci taaliyam mu ne ah kon de xanaa yow ndax nit naka la mën a defee jaam yàlla wëkk ba nëpp soxnaan di génn di ko wax nit ñi déedéet kon ki nga yëg naa am na ñu daan def loola da ngay réerantal nit ñi rek ndax nañ gis daal waaye aka wax ndax ñoom noonu lañ doon réeralantee nit ñi di nëpp seeni jaam yàlla nee na am na yoo xam ne suñu bàyyee ba guddi gi xaaj rek ah Ibn Abi Mulayka nee na ma ñu daal di koy seetloo rek fekk na ci dina commencé di julli gis na mbokk yi julli guddi moom ci jamono ju yàgg ja ba tey ci mboolem daal yi fi am ci fekk bee xayatu saxaaba yaa ci Qur'an ba fu mu ca nan ci yegg rek yàgg naa wax ni buntu la boo xam ni ñii raw ñëpp ca la ñu rawee ñii raw ñëpp ca la ñuy rawee bàyyi ko mu lëndëm yow kese yàlla kese kooku waxut du ko xam tëb ni mu neexee lan ni mu nooyee mbàcc yi ni mu muccee ah ndox mi ñu mu seetee kenn forcé wu la te boo ko def ci kenn la wax dara te coobara yi boo ko nga jub lépp sa ñaari taras yii di jàng di bànneeku ci alquran ndax inna nasu atamel li ashaddu waqtan wa aqwamu qiila wallahi yow ci sa jëmmi bopp yaay jëkk yëg ni yow fi ne am na lu loolu da ngay jëkk yëg ni am na lu la dugg boobu fekk nga na nga meloon maanaam kii keneen la ko def yow te loolu nag moom laaj leen ko def kat ñi koy def ñun xam nañ ko bu baax nit na du salaf ila yowmi nahar nee na mu daal di jub ci jàng benn bi ma teewlu ko bàyyi ko xel ndax ñoom it ñetti daaw defe te gis ñuy góorgóorlu def dañ leen daal di yëpp di leen seet ndax mën a roy ci ñoom jàng laa nee na xam naa lu kaw ni maa ngi nelaw fekk nelaw moom ndeke mi ngi jàng aaya ci di wajaa fikratul mawti bil haqq suñu borom mu ni wajaa ak yegg si na tey nag sakratul mawti suturaati ndee ci dum la fekk suñu borom ni yow jeexal nga de pare nga wa jaat yegsi na sakratul mawt sukuraatu dee yow ay certa la fi defe léegi nag dalika ma kunta minhu tahid li nga doon dig di dalaka sëkk sàkka buñ koy wax sax nga bëgg nit ñi noppi ndax bëggoo ku ko wax mu ne mbir ma yegsi na nee na bi loolu xamee ci la daal di taxaw mu Abdullah ibn Abbas allahu akbar muy di baamtu aaya jooju di jooy ma di ko déglu muy baam ko aaya di jooy ma di ko déglu muy baam ko aaya di jooy waaw ci guddi gi këram bi ñuy daje julli guddi gi jooyal yàlla gi sellal ga nëbbatu jox waaw nee na loolu man fekkee naa ko simaat nee na ibnu abbas dafa am feebar bu tàbbi woon ci bët yi gaaram ndox la moo xam ne bu tàbbee ci bët kat dafay yàq bët nee na bi loolu amee nee na Abdoulaye ibn Abbas bët yi commencé gëmm xam ngeen Abdoulaye ibn Abbas si mu jëndal dundam dafa sëriñ ma xawoon moo tax gars yi naa ko ah waaw yow moom sëriñ ma xawoon moom day na waate mu ne amu ci nekk leer gi nekkoon ci sama bët yi moom la yàlla jël gisatuma waaye nag alhamdulilah leer gi ñëwoon ci xol bi ñu xam-xam ba léegi ñu xam nee na mocckat bët yi dafa loolu su ma ko gëj a dégg sax boobu ndax mi ngi amoon njëriñ mi ngi koy def bàcc ba bàcc bët bàcc kati bët yi ah bu la déggee baax na dara mocc kati bët yi daal di ñëw ni ko dañoo bëgg a mocc bi sa bët yi waaye nag su ko moccee doo julli doo mën a julli parce que dëgg gaar yooyu da koy nekk di nga toog kon ay fan maanaam ci gàttal daal di doon loolu fan yoo xamante ni doo ko julli Abdullah ibn Abbas nee na bu fekkente ni wér di nar naa am te ci ñàkk julli la nar a jaar comme du ma wér déglu lam ca teg mu ni inni haddithtu annahu man taraka salatan wahidatan mutaammidan laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alayhi dana bu dee ñàkk jullit yi mooy tax dañuy wér ma xam di wér ndax man ñetti lañ ma ni génn julli kete ku ko bàyyi te yaa ko tey boo dajeg yàlla yëgal ni yàlla mer na la jëpp na la bëggul ci yow dara soxlaalu la dara ah mbokk yi ku bàyyi benn julli te tey nga dajeeg suñu borom mu jëppi la ba du la xool waaw ku def julli moom bu dajeeg moom nu muy def dana la jaaxal lool kon Abdullah ibn Abbas daal di tontu waa ji loolu kon lii li muy wane rek mooy ragalam yàlla la mënoon ay jaamu yàlla la lii lenn la ci rek waaye boo delloo ci téere siyaar yi la def soxo yi ñu jaww ji ah da nga tey fekk ay bunt li mu lay wan ni mu ragalee woon yàlla ak ni mu lay woon jaamu yàlla ku bëri woon kersa la radiyallahu anhu gis nga mu daan dugg ci wanak ah day am problème sax ndax ak ay yére ndax nee na dama rus sama borom ba rus sama borom dañ na ba sama ñu biir wax sax daf yaram boobu nag xanaa daf ñuy fàttali Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu dama rus sama borom ba rus sax nekk ci wàllu bëccëg sama borom dama gis fekk maa ngi bëccëg laa shakka ni hada gaayatul gaayatul xayaa ah fii la bis dëgg yàlla fa la am kersa nag mën a yem moo tax yéen sasalam nee na ngëm yàlla kersa ñoom ñaar ay doomi nday lañ bu dee rek beneen bi bu ci dee rek ay jeex lañ bu dee beneen bi benn ba ci tax ne ngëm yàlla ak kersa ñooy am bu yàlla yëkkatee bii ba mu jógee rek day yëkkati ba mu des moo tax na doon alxayaatu la yati illa bi xayr kersa daal du andi lu dul aw yiw waaye Abdullah ibn Abbas mbokk yi kaana mutawaadi'a allah Abdullah ibn Abbas ku ku ku oyof la woon ku oyof ndeysaan ak am solo mbokk yi yàlla dénk la ay ndombay tax ba mu dénk la xam-xam bu nga sut nit ñi ah lu nga wax su ko yàlla ëpp leen nit ñi rek mu commencé di leen ko wax ba di kenn jaay nit ñi yaa leen gën a xam yaa leen gën a dégg luwa yaa leen gën a dégg fiq yaa leen gën a dégg xadis yooyu amul sens yooyu war koo war ko yàlla subhanahu wa taala waaye da ko woon jaar allahu akbar soo xam ni borom subhanahu taala da koy dénk ay ndombay tax wala mu dénk ko xam-xam waaye da koy oyof wàcce boppam suufeel boppam ba da nga yaakaar ne kii bi moom la yàlla dénk lii Abdallah ibn Abbas nga xam dafa yoroo seen keppaar yonente bi alayhi salaatu wasalaam ibni Burayda al aslami nee na benn waaye daf doon joteeg Abdallah ibn Abbas xas ko allahu akbar xam nga nit ñi day daal nag noonu la mel rek am ku la cokkaar Abdallah ibn Abbas boo waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën a jéggi alquran ci xeet bi su fekkente ni moom la ñuy cokkaat di ko wax mbokk yi kon bariwul kenn waaye xoolal ci tey cokkaat yi ñu ko cokkaat bu ko yëgoon Omar ibn Khattab wallahi da ko cokkaat kon tey xalkaa bi tam waaye waa ji bu ko cokkaatee wax koy wax ba noppi Abdullah ibn Abbas ni ko yaa ngi may xas de yaa ngi may saaga de waaye du ma fay yaa ngi may xas de yaa ngi may saaga de du ma fayu ndax ni may melal di meru ba nii man naa la wax ay melokaan yoo xam ne mi ngi ci man am naa ñetti melokaan bi ci njëkk mooy man de dinaa romb benn aaya ci alquran ma yëg ci cap sa boo xam ni maa ngi tëb a katal ndax aaya bi lim ma duggee ni ma neexee li may ndébét mooy ak a neexoon jullit yëpp xam li ma xam ndax mi bànneexu comme ni may bànneexoo loolu mooy wane ne yéen naa ñëpp yiw te yow ci ñu ma yéen yiw allah mbokk yi lii lim nunu ko lii nunu mënunu ko mu teg ci ni ko man de naa dégg benn jullit àttekat ci jullit ñi mu àtte ab àtte ma dégg àtte ba àtte ba jub te maandu dafa tey kontaan te di ko ñaanal ci moom yëgul ni sax maa ngi koy ñaanal te soxla moom yëg ko beneen bi ci def nee danaa toog ba mu yàgg ñu ne dëgg tànkam de nawet ba baax na rek mu ni ma kontaan ngel ni dafa baax ami tool te awma ko sax ndox allahu akbar mbokk mbokk yi hakada yakunu muslim gis nga ko gëm yàlla saa boo dee ba natt sa bopp li nga yéene sa bopp moom nga yéene sa bopp jur gi ahibba linnaas wa tuhibbu linnaas dégg naa Sadou kat seen nawet ren di baax muy dafa ci kontaan kontaan mel ni ku fa am ay tool te amul sa sax mbokk fa loolu li koy waral mooy yéene sa bopp li nga yéene sa mbokk bi ci yaakaar naa ne kenn du ko baax a baax di waxante ak ñun ñuy bokk na ci mooy ku setoon la moom Abdullah ibn Abbas maanaam bokk na ci yi nga xamante ni yàlla baaxee woon na ko nee na saa su ma déggee sama mbokkum jullit wax ci man lu ñaaw nee na su ma déggee sama mbokkum jullit wax ci man lu ñaaw nee na su ma wàññi taxawaay yi laay am ci ñoom wallahi mbokk yi gis nga gis kii jàngalekat bi mat la te ñun ñëpp waroon nañ ko dégg nii la ko imam bi leen jaral di faram fàtte ci sifatu soxla nga xam ne mooy ci téere bi gën a dajale ci buntu boobu nee na saa su ma déggee sama mbokkum jullit lu ñaaw mu wax ma ko baa mu def ma ko mu ne ci boobaa lii mooy nekk sama solution nee na su ma ko xoolee gis ni kat moo ma sut garaat ci yàlla bu dee xam-xam moo ma ko ëppalee bu dee diine moo ma ko ëppalee bu dee ragal yàlla moo ma ko ëppalee su boobaa dama koy ornaale loola ñaanal ko yàlla rabbu jàll nee na su ma ko xoolee gis ni sama maas la ma ne ko kon xaaral ma jéem a jóg ci kër la man du ma ko yar toog yow maa yow noo tolloo woon waaye fi ne maa ngi lay bëgg raw ndax comme wax nga ma lu ñaaw rek man du ma la ko wax kon xaaral ma gaaw raw nee na bu fekkente ni maa ko sukk garaat dama naan kii jëluma yàq sama temps parce que dafay mel ni moom te romb naa ko dama ko dama ko allahu akbar mbokk yi wallahi def ne lii buñ ko doon jëflante olof bi ni ñuy wax naan ñaari loxo ñooy tàcc wax nañ dëgg de benn lam du yëngatu mukk benn lam ci loxo du yëngatu doomu aadama ci ku dikkoon indi histoire jeex xew nga teertoo ko salaam salaam day géey ki am lu ñaaw jóge ci ñëw ñëw ci moom wàcc ko wàccuwaay bi mooy li ma leen doon jox misaal suñu baax yële baax ñun da ngay xamal ci téeméeri siyaaba nga xamal ko benn mu bon benn mu bon rek nga bëgg yàq téeméeri siyaaba te si noonu dëgg la benn mu bon ba nga doon la danañ ko ca yeex danañ ko ca waar danañ ko ca jëpp danañ ko ca mee waaye fu mu tax ñu sow ko ci nguur sànni ci ko pel parce que liñ baax la ëpp liñ bon ne imaamu Gaari nee na bu dee lii gën a ko doxalee ñëpp ngay sànni doo ànd ak kenn ak wax dëgg kon melokaan bii moom la doon jëflante moom Abdullah ibn Abbas waaye karamu wa dookutu naka la dëgg woon addina ak ni mu tabee woon xam ngeen mbokk yi Abdullah ibn Abbas même bu bëriwul alal sax yàlla woon ko da ko toll bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yem na ci loolu waaye suñu ormaal la man amal ibn Xattaab xam ngeen bi mu mënoon ci xilaafa ji doomi saxaaba yi sax ba gën a jëlal salaire doomi saxaaba yi sa bàyyi sa bàyyi demoon na ba tax dañ koy wutal salaire gis nga fayu salaire ci lislaam ñu ngi tàmbali jox leen ko sa baay demoon na Badar dañ koy fay salaire ah yow sa baay demoon na Badar waaye sa baay nekk bi yaa fi nekk yow dañ lay fay salaire parce que sa baay ah allahu akbar lii da ngay respecté sa baay ma demoon Badar faatu na waaye yow ñu ngi lay fay lu tax parce que sa baay dafa liggéey loo xamante ni tey bu yëf yi neexee bañ koy noosee tey ñoom ñoo tuuroo seen dara Abdoulaye Abbas nee na man de. ma jël benn kër këru jullit teg këru jullit yoral leen seen dund àjjuma ba àjjuma bi dellu wala ma jël benn këru jullit yoral leen seen dund weeru nënd nee na moo ma gënal ma aji taaw aji waat allahu akbar alhajj almabrur ala taalamuuna anna laysa lahu jazaa yéen yàlla bi nee na aj ku yàlla nangu fayam moom mooy dugg àjjana rek amul passeport amul visa dugg rek ngay def seen jaar mu ne ma yoral leen ak benn këru jullit départ bis bu bis ba dellu ci maa weer moo ma gënal ak ah nee na ma fekk sama mbokkum jullit ma dimbale ko ngir yàlla moo ma gënal jël samay diinaar yu bari dugaloo fi sabilillah ba xam ne Ibn Abbas nee na keroog bi ñu fukkee bërëb bërëb ak dinaar am na ku njëkkoon am na ay nguur dëkk yooyu moom nguur dalay xam nga xayma xaalis yi doon am nee na keroog bi ñu fekkee xaalis. Iblis dafa jël xaalis yëkkati ko ba teg ko ci diggante ba xajjee bët bi di ko xool ni ko yow yaay ndaw lu sawar a yoon di waay ni ko yow moom soxla naa la yàgg bëggoon naa nga ñëw xaalis biñ ko defee rek Iblis da ko yëkkati teg ko ci diggante bët yi bakkan yi di ko xool te naa ko yow yaay ndaw lu sawar a yoon yow pour la yoon di nga dem te aw sa xara wax wallahi ñaari mbokk jullit yu def nii jàppante ngir yàlla dafa jàpp ñaar ñu génne biir àjjana ngay téer boo ko jëloon xaalis léegi rek di jox ko di léegi rek mën na ko def gis nga ñu mel noonu moo tax Iblis toog nee na Iblis sàcc bi ka udxilu naasa naara wa bi ka asqa wa bi ka asqu kasi nee na yow dërëm day yow dërëm di aaraate nga ma ñu ni ko lu tax mu ni dinaa fexe fexe fexe ba yéebarloo nit ci yow laay jaar dinaa fexe ba beewloo nit du xam boppam rëy rëy bi ci fekk ci yow laay jaar waaye dinaa fexe ba tàmbal nit sabar ci yow laay jaar mu ne raditu min ibni aadama bi xubbi dunya an yaxmudani gërëm ni ko waaw man de gërëm naa doomu aadama yi buñ dee jaamu yàlla fan lañ ma jaamu rek ak wax dëgg am na ñuy jaamu gërëm ñun yàlla day taay sa abdul diinaar yi taay sa abdul dirham am na koo xam ne gërëm lay jaamu am koo xam ne diinaar lay jaamu ci franc franc lay jaamu ci seetaan lay jaamu ci dóoru lay jaamu allahu akbar ak wax dëgg am na ñoo xam ne tey ak jaamu mooy koo xam ne lu mu la laaj la nga jox amul tisbaar amul takkusaan amul dara kon daal lu mu la laaj la bi ñeent dina dugg rek baax Abdullah ibn Abbas nee na saa boo déggatee nit di wax soo déggee nit di wax bul xool ndax jàng na wala jàngut wala nangam déggul la muy wax rek ñu ne tax mooy inna rajula la yatakallamu bil hikmati wa laysa bi hakim léegi ngi digg benn way wax wax ju ñëw ju am fulla te waa jëkk na saa xam dara xam naa mooy misaal bi leen doon jox sax rek fan yi paase bi mbokk mi doon ko wax naan am dox dañuy waa Dakar yéen léeg-léeg dee di tàngal di naan di settal di naan ah waxal dëgg mu ne am dox ko wax mu ne waa Dakar léegi dee ndax dañuy tàngal di naan tàngal ba mu tàng jër ndékki ndékki lu tàng jër fale jënd muusu garab di ko jënd ci kaw da ngay deewee ñaar yi sax ëpp ngeen yaram te moo ne am dox ko wax rek di tàngal di naan di settal di naan léeg-léeg dee moo tax nekk nekk xekk ba dana génne ci kudul xat yi xëy na dana génne ci kudul xakim loolu moom suñu laaj bi lay laaj muy wolof rek defe naa di nga ci dégg ñu tax ñu bëree bëri léeg-léeg nit wax wax yoo xam ni subhanallah da nga naan kii lii fu mu ko xalaatee ba di ko wax moo tax mu la déglu rek ndax léeg-léeg mën ngaa gis benn waay bu xàcc xeer ni ko jëm mu dal comme bëgg mu dal ba te fekk mu ne loxo bi ci biir dëkk daa dañe rek daa tombé li wala dinaan tombé waral aay gaaw kon léegi doomu aadama bu mu xeeb kenn bu mu xeeb kenn imam Shaafi'i daa toog di jàngale ba mu yàgg mu seen benn paa bi ñëw rek mu daal di banque sànq bi ñu ne ko kii kan la ko ne kii sama sëriñ la ñu ne ko yow kii xajaay bi moom kii daa xam dara mu ne moo ma sa wax ne xaj bu góor bu dee ba toll ci mat mu kàllaf buy taw day yëkkati benn mu ne loolu xaw ma ko depuis ma ko waxee léegi xam xam na moo tax ma boole ko doon ñaala ko sëriñ sëriñ wala du ko sa wàllu am mbokk yi est ce que ñun am nañ oyof bu doy ko nit ki benn kër bi ngay istifaadoo sa bopp ngir sa sëriñ la ci loolu jëriñu ko ci moom waaye déedéet kenn ku ci nekk daal da ngay bëgg di gën a fëggaliku di jëm kaw bu ko defee yàlla dina gën a not rek day jëm suuf gis nga Abdoulaye ibn Abbas ku ormaaloon ni yàlla ormaal la te wa xoqalaha daali wa xoqalahu daali li ko waral moom mooy ku déggoon alquran al karim la mbokk yi téere bii di alquran day yàlla da ci yëkkati ay nit ba ñu nekk ay sang inna allaha la yarfa'u bi hada alkitabi aqwaman wa yadaaw bi ñuy aar aar yonent bi nee na yàlla dina yëkkati ay nit ñu war a doy ba nekk ay sang te fekk alxuraan leen ko teg waaye mu suufeel ay nit ñu war a nekk ay sang te fekk doyadal alxuraan moo leen ko teg. Abdoulaye ibn Abbas xam ngeen ni mbokk yi Omar ibn Khattab bu mu tànnaa problème day woo ancien Badar yi di leen kaay leen bàyyi nekkoon Badar ñoom sax ñu Waqqaas wax ne Affan gaa yooyu ah ancien bàyyi ñu leen kaay leen bu ñëwee mu ne leen nangam jafe lu ngeen ci xaar. léegi paa yi bu ñu dajee di waxtaan bu séenee Abdoulaye ibn Abbas bi roobare gannaaw ba eh saa ñëw toog fii ndeke paa yi loolu neexu leen parce que li tax neexu leen mooy yéen Abdoulaye ibn Abbas gone la te ñu ne ay doom lañ am ci kër gi pourquoi ñuy woo gone bi ñu ñëw di fekkee waxtaan mag yi waaye wala bi nee nañ gone bu la xam ne day mën a bokk ak mag ña ah gars yi dem ba yàgg benn bi suñu ñax bi ba ne ba xamal ñu xam sax léegi def jaadu mu ne lan laa def ñu ne ko Madi demul di waxtaan te am ay doom bàyyi leen ci kër ga day def gone yi di doon di suñu waxtaan loolu jaadu Omar ni leen bis dana ñëw ma wan leen ndax jaadu na wala jaadu Omar bàyyi benn bis rek Abdoulaye ibn Abbas ñëw toog mu ne bàyyi damaa bëgg ngeen tafsiral ba iza jaa nasrullahi wal fath kii xàcc jëm fee kii xàcc jëm fële kii xàcc jëm fële kii xàcc ku nekk wax ba àggal Omar daal di gerte na Abdoulaye ibn Abbas yow li bàyyi wax ànd nga mu ne ko déedéet mu ne ko lu tax àndoo ci mu ne ko tawee daal li ko tënk tënk mooy doon tàgge si yaram ci mu jeex looloo ko tax a jóg idaa jaa nasrullahi wal fath bu dimbalal yàlla ci ak ubbeeku wa ra'ayta an-naas yadkhuluna fii diinillaahi afwaajan nit ñi di dugg ci diine yàlla ci ay mbooloo ah yonent bi xamal sa bopp yaa ngi bëgg a jeexal kat fasabbih bihamdi rabbika na nga sàbbaal te sant sa borom ndax moo indi lii wastaghfir mu jéggalu ko ndax yaa ngi waaj a dem innahu kaana tawwaaba biñ ko tafsiree ba noppi nag bàyyi kenn ku ci nekk ndar ji nii ndax façon ni mu ko tafsiree moo gàtt leer Omar mi leen mi ngi nii ko ne ko man lu bàyyi moom kay wax dëgg yàlla war naa ma keroog la ko bàyyi jàmmal bi commencé di soobam te it nag déglu moom ak am solo léegi gis koo xam ne di nga ko jox at yu ëpp la mu am te fekk yàgg yàgg déglu ñu commencé rek kon keppaar moo tax boo seetloo ku mag yar ndax ku gën a yar duñ faral di bokk ku mag yar dina am ay xereñ yi àddina su dal ak xam lu muy wax ak lu muy waxee ak kañ la war a wax kañ la war a noppi loo xam ne keneen ku dul moom doo ko am gis nga Abdullah ibn Abbas keroog bi Ali ibn Abi Talib doon laaj xawaari yi ci sabara Abdullah ibn Abbas ne ko boo ma tàgg woon doo ko def te mbokk yi xam nga Abdullah ibn Abbas yàlla dafa def yàgg naa corrigé ay mag donc ñoom corrigé bi rafet la koy defee xam nga Ali ibn Abi Talib xawaari yi dañoo demoon ba daan ko yaay yàlla loolu nga soo mu mer mer mu jéggi dayoo taal aw sawar rek dañuy dugal ci biir digg di saba saay saay bu bon bi daan ne ko la ilaha illallah man nag maa ngi doog a gëm ni digg na ni ay yàlla ndax sama xamee kuñ dugalaatee ba tey amul kuñ dugalee ci safara yàlla rek kuñ dugalee ci safara kon nag an ta jila yaa yàlla Abdoulaye ibn Abbas ne ko waxoon naa la ko waxoon naa la ko lakk nit ñi ci safara soo ko defee da ngay gën a yokk daay gi rek rey leen rek mu jeex rey leen waaye bu leen lakk te xoolal jëf ci doon def ak a baax ndax ku def lu ko mun na reere baax na waaye nag maanaam ubbi laa nga buntu gaa yi ñu gën a tax ñu ne ko yaay yaa mu ne ko lii laa xam defe naa yéen a ngi fàttali ko bindu Aïcha radiyallahu anha keroog ba mu demee ca xeex ba ñuy bitti mag saxaaba yi ku mel ne Abdullah ibn Abbas ku mel ne Abdullah ibn Omar doon la ko wax lu mel noonu boo ñu tàggu woon doo dem boo ñu tàggu woon doo dem gis nga nga xamoon ne lépp ci lay mujj kon yu mel noonu bokk na ci képp yi nga xam ne jëkk ci Abdullah ibn Abbas kon bokk jëkk ci xam-xam dafay jox nit ci dara ji ci kawe wallahi yàlla lay kawe xool leen xool leen xool leen shahida allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ul wal malaika wa ulul ilm yàlla nee na seede na ni maa yàlla jël naa malaaka yi ñu nekk sama seede kaw suuf ba kaw suuf daj mbokk yi yàlla ku xam na tax wa ulul ilm xaaral bil qist mbokk yi xam ngeen ne kuy wut seede tegg ci nit ñëpp am koo jël laa sakkane ka nga jël amalu la tam moo tax kenn ku nekk mbébét nii moo war a tax mu góorgóorlu fexe na mbébét baa xam-xam te it yàlla tax ku dëgëroon la aw lay nag moom Abdullah ibn Abbas ku dëgëroon la aw lay benn bis benn waaye dafa ñëw daal di koy fekk di ko laaj awalam yaraw anna samawati wal ardi kanata ratqan fa fataqnahuma lu muy teg ndax booba nit ñaa ngi kenn ku ci nekk maa nga koy wax ay wax mu ni asamaan si daa nekkoon lu ni tekki tekkaaral dëgër taw daawul wàcc suuf si nekk lu tal lool gàncax dawul sax suñu borom daal di gëstu asamaan si muy wàcce ndox mu fëlal suuf si muy génne gàncax muy loolu mooy fatahnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy ginnaaw boo xam ne aaya jooju dafa jaaxaloon ci jamono lu muy tekki moo tax Amath nee na Abu Wa'il nee na te xam ngeen Abu Wa'il ci ndongoy Abdullah ibn Abbas yi la bokkoon Abu Wa'il nee na am na aj doo xam ne Abdullah ibn Abbas doon na firi suuratu nuur mu ni billahi waa perte sax bu ñu fekkee woon tax bi doon dinañ ko dugg ci ndax dañoo wax ci ay kéemtaani yàlla loo xam ne loolu dafa dépassé xamul doomu aadama loo xam ne maanaam nim du jul bu ko déggee sax mu koo rek nga xam ngeen ni Abdullah ibn Abbas kéemtaani suñu borom la woon ci jàngale loolu la koy wax ne mooy xista bii di ñëw Abi Saalih nee na man de mas na maa fekkee Abdullah ibn Abbas ci benn jotaay boo xam ne gëm naa ni waa Quraysh diire Quraysh yëpp buñ amul woon benn valeur su dul benn jëf ji man nañ koo ndamoo ba Allah xeex ak sax allahu akbar xoolal biir Quraysh bu ñu amul woon benn ndax bu dul bii lay bëgg a tudd man nañ koo ndamoo ba Allah xeex ak sax ñu ne ko lan la mu ne benn bis damaa génn gis buntu kër Abdullah ibn Abbas fees yàlla yàlla yàlla ak ay nit nit ñi toog mbooloo mu ne yoon sax dañ ko baare nee na bi ma duggee wax ko Abdoulaye ibn Abbas ni ko ñooñu lu ñuy wuti mu ne xam-xam la ñuy wuti mu ne aal na ko sarake ma jaar ñu aal ko sarake mu jaar bi mu paree mu daal di yónni Abu Waaye ni ko neel mbooloo ne képp kuy laaj lu jëm ci alquran rek ma dugg si ku dul laajul alquran ma dugg si am mbooloo dugg ba fees nii alquran façon jàngi nii façon nu mu wàccee fan la wàcc lii ma diina képp xool képp nañu ne waaw mu ne génn leen xajal ñeneen meneen mbooloo dugg si mu ne tafsir lu waaye am looy laaj sa xara ba naas laajal gaa yi di laaj di laaj ba mbooloo bi jeex mu ne daan génn ñu ne waaw mu ne génn leen ñoo ne génn mu ne fiq laay ñëw leen war na xalam fiq lépp soog gi lislaam yëpp nee na mbooloo daanaka dañ koy yendoo ba ngoon bi mbooloo bi demee mu ni miraas ñi am problème mu miraas lan la dugg si bañ demee ba yëpp jeex mu ni même làkku arab lugal arabiya shaar fëyee bi way même bu dee soo am seexul jaahiliya sax seet la ku am looy laaj ñëwal allahu akbar mbokk yi ñi moom li abu waay wax dëgg la mu ni lii mu gis koo gis ci kenn wax na dëgg lii ma gis ko gis ci kenn te it boo fàttali ko du Abdoulaye Moussa Ba dana xëy benn bi dana ñu tey journée aqida la ba ngoon jot nag loo soxla ci aqida la jàkkaar la yeneen nga xëy benn journée tey fekk la noonu la doon def moom léeg-léeg daanaka def ci ak dundam moo tax mu ni lii de bu fekkonte ni ñoom dañ koy ndamoo arab yi ba ak na tukki nee na musuma gis maa famaa raaytu mithla hada li ahadin min annas musuma gis lii mu am ci kenn ci ci nit ñi beneen bi ci topp mooy kéemtaan boo xam ne gis nga xam-xam ni mu mel wallahi mbokk yi xam-xam non subhanallah def bi ci nekk doomu aadama su ko xamoon lu mu mën dana ko def pour jàng xam ngeen ne yéen a ngi fàttaliku maanaam imaamul xatib al baghdadi te jamono jëng xam ni yahud yi fexe woon nañ ba créé benn leetar leetar boo xam ne dañ caa def ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen yéen yahud yi yéen a moom suuf si ta ci madina waaw mi ngi nii waxte ay wax benn bi ñu xoolee archives yi dañoo gis ni lettre bi ak lettre yonent yi yonent bi dañoo nuroo mbind ma ak mbind na yonent ba yonent doon bindul dañoo nuroo tax ba ci bañ ca ba yëpp nuroo ñoo nil ko amirul muminin ci jamono jooju ci dawlal abbasiya amirul muminin liir ko jox ko gars yi ñëpp ni ah lii de ak jaaxle la te yonent bi leen digg mooy leen jiite yëpp ci Madina lan moo ci fexe te lii lettre bi yonent bi la benn waaye bu muus ni nañ dem dellu ci borom xam-xam fekk jamono jooju moom xatibu Bagdaad mu nga xam xam ngeen Bagdaad moo nekkoon capitalu islam si jamono dawla abbasiya xatibul Bagdaad yi xam ngeen sa imam bu mag la daa def sa benn téere boo xam ci téere yi gën a riis ci ak ci taarix la mooy taarix Bagdaad boo demee métti naka lu ahmar ma xàmbal la ci li moo xam ne kenn taara suñu borom ah bi loolu amee ñu indil ko xatibul Bagdaad yi mu téye leetar bi liir ko bi ko liiree ba yegg bi ah lii da jërul yàq wax yi moom ay kàddu la du dëgg te fekk dëgg bi yëpp ñu ci jaax ñu ne ko yow loo def ba xam ne ci kàddu la mu ne woo leen jot a wax loo mbooloo bi dëkk bi ñu daje ci penc bi biñ dajee ci penc ba dafa yëkkati leetar bi ñu jàng ko ba noppi mu ne waaw ñoom dat biñ ci def dat biñ ci def avant mat Makka la après mat Makka la te bi avant mat Makka la tuuti dat biñ ci def avant mat Makka la tuuti te nee nañ Saad ibn Muaz bokk na te ña ko fekkee te Saad ibn Muaz dee na avant date bii bu dee mën ta dekk bi seen teg gaa yi xam ne boobu moom yàqu na ñu ne ak fan mu ni nee nañ Muawiya tamit bokk na ci ñi ko keede mu ni leen Muawiya ginnaaw Fathu Makka la tuub am yéebar yëpp naka la fi jullit ñi nekk yonente bi dem di seedi yéebar yi naan leen kaay leen seedeel ma وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا mbokk yaakaar naa masala yu mel nii bu daara ba tey te dëkk ba xam-xam lu ci am lu mel noonu moo tax Abdoulaye bi Abbas gis nga ci jamono yi Aliou Sall Sall te mbokk yi xoolee na Aliou ak ni mu dëgëree ni mu gëmee yàlla xawaar yi ci génn nekk vingt quatre mille personnes vingt quatre mille personnes mbokk yi vingt quatre mille personnes ak ni ñu bare ni ñu mën a jaamoo yàlla koo ci gis jëbaa ci mel ni oomu ci leen ndax mën a julli xawaari ci ne ñu ne Ali Abi Talib yéefar la moo tax ànd ñoom moom dem ca àll ba Ali jaaxle xam ngeen Ali dem na ba ñaan yàlla si yàlla man fi ne ñii lakkal nañ ma baax na ma jóge ci benn yoon ndax affaire bi nekkee ci Abdullah ibn Abbas ni ko ah man de boo ma joxee ndigal dinaa dem ci ñoom te bu ma demee ci ñoom bu may ñëw ndax ndale sëriñ mu ne ko jox naa la ndigal mu ne ko war waxtoo jot mu ne ko tisbaar ay bëgg a jot mu ne ko comme da ngay yeexe tisbaar yeexe ko ba mu naaj mooy Ibrahima yéen ci yàlla ida ida stadda al harbu fa abridu yéen ci yàlla nee na bu tàngoor wi demee ba nekk di lakk man ngeen a teral tisbaar bi mu yéeg tuuti nee na ba daal di tudd tàngu ba def kaana bu nàpp sama man sama yàq génn après nga am nee na bi ma dikkee maa ngi fekk gaa yi subhanallah koo ci xool da koy ñee ndax mën a jaax yàlla seen bët yaa ngi xonk ndax ay jooy allahu akbar ma ma ma xol xol bi daa ak réer ñi muy def nii seen jëyaay yi mel ni oomi ci leen ndax mën a naafile mu ni ku dugg ci seen biir balaa koy wax koy wax mu ni ku dugg ci seen biir da ngay xeet say jaamu yàlla ak koo mën a doon ndax mel ni waaye seytaane dëkk na leen nee na bi ma yegg tey ma ne leen waaw yéen kii goro yeneen bi la ndax may na ko doom muy Ali ibn Abi Talib ñaareel mooy ndaw yi ñoo ci dugg dugg ci l'islam ñetteel mooy xalifa moom lan moo leen métti ci moom ñu ne ko yéefar la yéefar la moo tax topp ñu ñu ne ko lan la nekkee yéefar lan moo leen métti ci moom ñu ni ñett moo ñu métti ci moom mooy moom daa war a àtte jël ci téere yàlla bi def ko mu jël ay nit naa leen dem leen ngeen àtte nit ñi waruñoo àtte te yàlla ak yonent bi nekk loolu mooy lan yow yebalee Abu Musa al-Ash'ari mu daje ngeen mu alee ngir ñu def benn jàll kon ka cawla cawla ji boobu fekk naa loolu leeraloon naa ci ñu Ali ibn Abi Talib mu ni kon yàlla moo ne inal hukmu illa lillah yàlla rek moo war a àtte ndeysaan ñoo tax ñoo jàppee alquran rek defe ni yaa ci nekk sa way di nga am aaya boo xam da lay sukki jalal loo nga daanu bi sënn in al hukmu illa lillah mu ne boobu ak man ñu ni ko dafa xeex ak ay dafa jàpp ko ba gañe ko pourquoi jàpp ko jàpp yóbbu ko kër mu dem bàyyi ko su fekkee si ni jàppul ni ku ñu war a jàpp jàpp la kenn warul xeexal moom te lu tax jàpp ko mu yóbbu ko ndax xeex naa moom ba gañe ko lu tax ko koy bàyyi muy dem ci ñu ne ak lan loolu la nekk ak yar ak lan mu ni bokk na ci leen métti mooy bi ñu defee accord yi dañoo bind Ali ibn Abi Talib ah mu ni léegi pour maslaa bi la tax mu ni effacer amirul muminin ñu ni pourquoi amu ko en moo effacer na ko doon bu nekkul amirul muminin mooy amirul kaafir wax ci tàng jër na Abdullah ibn Abbas ni léegi nag léegi damay sartanteeg yéen lii ma leen di sol téere yàlla bi laa koy génne te su ma leen sol sol da ngeen di jël gars yi sax nañ ko sax ndax yàlla daf na xorwaal nañ ko mu daal di taxaw def ak xutbaam ba noppi mu ne waaw su fekkee mbirum àtte mi inal xukmu illa lillah xanaa jàngu leen ba problème amee ci tey suñu borom ne fabaatu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islaahan yuwaffiq allahu baynahuma problème am na ci tey bi suñu borom ne woo leen ci famille bu góor ci kenn àttekat woo ci famille bu jigéen ci kenn in yurida islaahan bu leen defar taxee jóg yuwaffiq allahu baynahuma kii xatam la ko yàlla tuddee kii xatam la ko yàlla tuddee léegi loolu lu ngeen ko bëgg a def ak aaya ji amul tontu amul tontu ndax ndax amul tontu mooy lan doon bañ mooy inal xukmu illa lillah yàlla bu wàcc xatamal si àtte moom ni muy def faw ci ay loxo lay jaar gaa yi di tekk mu ne déedéet soxla ko tekk de da ngeen di nangu ni am naa ndax boobu ba pare am doo ko jàll gaa yi ne ko wax bii moom nangu la mu jàll mu ne léegi ngeen dafa xeeran ay ba pare jàpp ko mu ne léegi damay laaj ndax yéen reconnaître ngeen ni Aïcha ummul mu'minin la wala déet ndax yaay jullit annabiyyu awlaa bil mu'minin wa azwaajuhu ummahaatuhum yàlla lool ci alquran nee na yonent bi moo gën a yey ci képp ku gëm yàlla ci ay soxnaam suñuy yaay la nangu ngeen ni seen yaay la wala déet bu ngeen ko nanguwul ay yéefar ngeen te bu ngeen ko nangoo ndax bëgg ngeen jàpp sa yaay jàpp di ko xor nga ñax gars yi ñu teg ñu def da ngeen toog ñaar yi da ngeen di wax ban mos ñaar yëpp ko wax jël leen ci benn gars yi ne ñun koy duñ ci mën a jël benn mu ne comme nangu ngeen ñu ni waaw mu ne ñetteel bi yéen nee ngeen doo dépassé juróom ci amirul iman rek ñu ni waaw mu ne waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog ba ñu def sulhul hudaybiya mu bind muhammadun rasulullah awata dina ko ni ko déedéet nanguwuñ ni yaa yonent yàlla duñ ko nangu woon duñ def ay accord yonent bi ni effacé leen moo tax gis nga ali nag daa tay tay ali daa tay ndax action ba bu ñu am ali moo ko fekkee woon yonent bi ne ali effacé sama tur ali ne ko dut rasulullah dama ko effacé xanaa nga wuti keneen ko effacé yonent bi woo benn waaye ne ko ana ana muhammad rasulullah mu ngi wéy sallallahu te loolu ci kéem kàlla ñu la doon léegi nag ana Muhammad fan lañ ko bind ñu ne ko mi ngi nii mu effacé ko moom loolu ca Ali la amee woon Ali bi bi mu gisee ne problème am na toll na ci war ko toll ni nga yàlla bi tolloo mu ne nag effacé ci loolu mu ne waaw comme ku nekkul amir mooy amirul kaafiri léegi yonent bi nekk woon rasulullah kon lan la ko wax daa ñu teg ñu ni déedéet soxla ma teg da ngeen naan nangu nañ ñu ne nangu nañ mu ne leen mbir maa ngi loolu allahu akbar allahu akbar bi muy dem dana ko su may ñëw naan daal sëriñ vingt quatre mille personnes la ñu vingt mille personnes yëpp keroog dañoo julli tisbaar vingt mille personnes yëpp dañoo julli tisbaar bu def ah quatre quatre mille personnes subhanallah ñooñu benn mbooloo da nga bëri woon génn dëkk bi sax lañ def ñu ñëpp seen i doom seen i njaboot seen kàmb ca àll ah ñaar fukki junni nit yoo xam ne dañoo nekkoon ci yoonu xaawee jëf nga tourné ñoom andi leen di julli tisbaar donc bu ñëwoon ba àllaaxira ñu bàyyi ay yëngu yëpp fay ko bii te damaa yaakaar ñu am ñu mën a yóbbaale moo tax xam-xam nii la xam-xam di jëriñ moo tax Iblis ci gën a bañ mooy borom xam-xam borom xam-xam la gën a bañ def koo bañ a bañ a bañ a bañ ba bañ gi daanaka moom xamul suñu tool al-Allaama Ibn al-Qayyim rahimahullah ci téere boobu di Miftaahu Daari Saada ubbi na ca bunt bu yaatu boo xam ni lu ma téeméer ak ñaar ci ay bunt bu ñu koy wax ci wàllu xam-xam waaye mu lay leeral Iblis ni mu bañee borom xam-xam ci ngay xamee ndekete ni borom xam-xam la yëg ni amul noonu bu gën a yées Iblis amul loolu moo tax saa borom xam-xam faatoo day doon daan te ki doon leeral yoon yi moo dee daa bëgg nit ñëpp nekk ay innocent rek su ko defee duñu xam yoon wa ñuy jaar pour daal di tànn fa nga xamante ni mooy kërëb xéwal ba kon yii dafay soññaat ndaw ñi tey ndax kii ñuy waxal du am faaru ba jaar rek déedéet ndaw la woon à l'âge de douze ans treize quatorze la commencé mel ni mu mel ah nga xamante ni benn waaye dañ ko wax ni ko waaw yow lan moo tax dañoo jàngi ca magi saxaaba yi ngay jàng ci gone yi saxaaba yi Abdullah ibn Abbas mu ne parce que damaa seetlu masala day ñëw juróom ñaar fukki saxaaba juróom juróom Abdullah ibn Abbas te léeg-léeg ñoom ñëpp dañu ñëw fekk si waat kon loolu tawfiq la yoo xam ne suñu borom moo ko defar waaye ci ndaw la kon dafay dolliwaat courage bu léegi parce que nangam kenn mën ko wala kenn du mel nii loolu nit ñi dañ ko war a bàyyee wax li ñu war a gëm mooy mbir yi yàlla mooy maye subhanahu wa taala kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla defal ñu tawfiq yàlla yàlla boole ci suñu xam-xam te it mu nekk loo xam day nekk xojjatan lana la xojjatan alayna wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Thank you.